fa demee dañu bañal nag ñu dugg ci biir DGE direction générale des élections baare bunt bi euh, ay policiers ñoo fa newoon ñu jox leen ay ordre ne ñii bu ñu dugg te euh, lu ñu gën a jaaxal prétexte bu ñu joxe ñu ne direction générale des élections tey nga xam ne jeudi le jour ouvrable la horaire ñu ñu fa dem horaire ouvrable ouverture la woon ubbeeku woon na ñu ne tey euh, direction générale des élections du recevoir kenn alors que gis nañ ñuy dugg di génn ci biir direction générale des élections nekkuñu férié te direction générale des élections suñ koy fàttaliku moom si boppam moo jël ndogal ministre bi moo jël arrêté le 25 septembre ne nit ñi ñëw leen jël si seen fiche de collecte de parrainage candidat à la candidature direction générale des élections daf communiqué jégal ko candidat à la candidature donc tey euh, gisuma lan moo te ah ñu recevoir ñi wax ak ñun Ah, ñu jox ñu suñu fiche de collecte de parrainage puisque am nañ benn décision de justice boo xam ne jox na dëgg le candidat Ousmane Sonko. mu doon lu graaw loo xam ne lu doy waar loo xam ne en tout cas ñun duñ ko nangu ñun nañu delluwaat DGE pour réclamer suñu fiche.